ki ñuy tànn nit ñi xam nañ ko. nous avons retenu monsieur Amadou Ba actuel premier ministre comme candidat de Benno Bokk Yaakaar et de la grande majorité présidentielle. Amadou Ba nekk premier ministre mooy candidat coalition Benno Bokk Yaakaar fi mu dëkk ci parcelle ñoom kontaan nañu. ay naataangoom yu mu nekkal ci gouvernement bi tamit bëgg nañu ci. kon d'accord di ko sant di ko féliciter. ki nga xamante ni mooy di ministre de l'urbanisme di Abdoulaye Seydou Sow mu di Amadou Ba choix bu baax la keneen ki di Abdoulaye Diouf Sarr ne lu ñu war a def rek mooy booloo nekk ci ginnaaw Amadou Ba wante ci sargal yooyu yëpp ak ci mbégte googu lu ko yàq moo di génn gouvernement. Aly Ngouille Ndiaye nekk ministre de l'agriculture moom tekki ndombal tànkam ni wax ne dina wéyal liggéeyal Sénégal ngir mu soxaliku ci cëppaandaw gi Amadou baax di premier ministre moom la ñu tànn. ci biir ñeneen ñu bëggoon a représenter coalition bi ñeneen ñooñu nag daanaka bu ñu tabee Amadou baax ci bopp coalition bi kenn tegu leen ku ci mel ni Abdoulaye Daouda Diallo di jiite conseil économique social et environnemental waxagul dara keneen kii di Mohamed Boun Abdallah Dionne nekkoon fi premier ministre moom tamit dafa noppi ci mbir mi mu nekk taxawaay yu wute ci biir coalition bi wute lool booloo bi ñu doon wootee moonte de ki nga xamante ni moo di El Hadj Omar woon na ñëpp ci 1er juillet 2023 bi weesu ci kanamu président ma Macky Sall. yow rek yaa mën a taxaw. njaboot gi taxaw nekk sa gannaaw keneen mënul am loolu maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatulah.